مع عيوبي ومع عفاسي من قادني سكور في أنفاسي مع عيوبي ومع di ziyaare ak ñaanal sëriñ Mouhamadul Muntaqa ibnu sëriñ Basiir sun boroom tabaaraka wa taala defal ko tawfiq ba naal yim naale liggéeyal lislaam ci toolu maamu Cheikh Ahmad Bamba suñ borom tabaaraka wa taala defal ko tawfiq nun taalib yëpp ñu ànd kook moom noonu la ñuy siyaare mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel seen seen Dint Actu ci mbooreem biir réew mi ak bitim réew tey nag ñu nekk ci pàkk bu sell pàkk boo xam ne pàkk bu am solo la pàkk boo xam ne benn pàkk ci njabootuk lislaam waaye benn pàkk ci njabootuk Cheikh Ahmad Bamba Xaadim di ko xam ne ci bokk na ci ñi nga xam ne sunu borom tabaaraka wa taala moo wax ci alxuraan ne la nga xam ne moom lañ daale woon ak sunu borom tabaaraka wa taala matal nañ ko. muy aaya bu sell boobu borom bi tabaaraka wa taala wax ne minal mu'miniina rijaalun sadaqu ma ahadullah alayhi kii nga xam ne moom lañ war waxtaani incha allah da cee bokk muy sëriñ si Afsa Mbàkke ibnu sëriñ Mor Anta Sali ñu nekk ci pàkkam ci kër sëriñ Seex Coro Mbàkke jàkkaarlook ki nga xam ne moo yor kàddu kër Serigne Cheikh Absa waaye lu njëkk loolu day niiw ki nga xam ne moo fi toog xalifab Serigne Cheikh Absa di Serigne Cheikh Mbacke xombal waaye suñ jëlee kàddu gi jox ko Serigne Mouhamadou Lamine bi nga xam ne moo jiite daayira bi nga xam ne moo lëkkale sëti Serigne Cheikh Absa yi di Saadatul Mouridine mu joxal ni ko Serigne Cheikh Jooreel Mbacke mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi. incha allahu taala moom sax la ñuy jox kàddu ci kanam tuuti ngir ñu waxtaanee koo xam ne kon war a waxtaane la koo xam ne it lislaam day soxla ñuy waxtaane ñu mel noonu ndax borom bi tabaaraka taxalaa moo bëgg ñuy fàttaliku ñoo ñi nga xam ne dañ fee nekk woon li neex yàlla neex yonante bi alayhi salaatu te soo demee ci benn xasida boo xam ne bu am solo la boo xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu moo ñu ko jàngal mu wax ñu ne ñoo ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon lu baax biñ fi jógee asamaan dafa xiif ci ñoom di leen jooy ak suuf xoqal bukaa waxala saadaati amwaati tabki araadi alayhim kassamaawaati abki alayhim wa arju fil bukaai gadan ridwaanu man fii xaabu bil xalaawaati kon incha allah noonu la ñuy joxe sëriñ Seex Jooreel mu xëy na jotaay bi du ko maye waaye mu waxtaanal ñu lenn ci dunduk sëriñ Seex Absa Mbàkke radiyallaahu anhu digganteem ak magam ja xaritam ba sëriñam ba yaakaaram ba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaye digganteem ak njabootuk sëriñ Mor Anta waaye digganteem ak yoonu murit kon dañuy jox sëriñ Cheikh Jooreel mu nuyoo directement ñu dugg ci waxtaan sëriñ bi bismillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii sëriñ Thierno Mbacke daane rek fi lañuy ñuy Euh, du jër baax mu ñu nuyu kilifa gi nga xamante ne mooy kilifa yoon wi Cheikh Mamadou Mountakha nuyu itam njabootu Serigne Touba yëpp nuyu itam sëriñ Abul Baraka mi nga xam ne moo fi toog toogaayu Cheikh Mamadou Fadilou nuyu itam sëriñ Cheikh mi nga xamante ne mooy borom kër gi jiite ko muy Serigne Cheikh Absa Mbacke Xombal di nuyu itam njëwrinam Cheikh Mamadou Bassirou ak sëriñ Mame Balla ak sunu kilifa yooyu nga xamante ne ñu jox seen kàddu ñuy wax ci seen tur euh, ni ko sëriñ bi juñee sànq rek gannaaw nuyoo bi ñuy xamle ne dafa am bis boo xamante ne dañ ko baaxoo di ci fàttaliku sëriñ Cheikh biss boo boobee nag ren jii mu waroon a doon fukki fan ak ñaar ci weeru tubaab at mu ne nag mu daan dëppoo ñaar fukki fan ci weeru kori muy bis boo xamante ne bis bu mu daan am mbégte la ngir ca la gane la magam yu baax ja Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu ñu amoon ndigal nag ci kilifa kilifa yi doon ko fàttaliku at mu jot ba ci ji yàlla dogal nag am lu fi jaar loo xamante ne àdduna bépp ko xamandoo muy mbas mi ci loolu nag kon ñuy tënku rekk ci ndigal yi nga xam ne mu Cheikh Mamadou taxa joxe na ko ñu ñaan yàlla mu yàgg fi lool tànd ak wér ca nga xamante ne bi muy door mu ngi tàmbale woon ci màggalu Kazu Rajab bu Cheikh mu dul def kenn ku nekk ci barab ba mu nekk te ànd ko sell ak yéene te ñu ko daje bi ba yeneen njëmmi jamono kon na ko sëriñ bi waxee woon rek fa muñu bis bi waaye defin bi lañuy soppi ni ko sëriñ bi diglee yu bari jaar na fi daaru Muxti jaar na fi eh, daaru salaam jaar fi ak barab yu bari bari daal kon loolu mooy li nga xamante ne moo waral ren ji ñu soppi defin wi eh, loolu nag mooy li nga xamante ne mooy ndigal li nga xamante ne moom Cheikh Mamadou Mountakha joxe kon loolu moo doonoon nuyoo bi ñu jox Cheikh Mamadou Lamine bu ko defee ñu door ak si ci jëmm ji nga xamante ne moo waraloon bis boobu. ci digganteem ak seexul xadim radiallahu taala ak digganteem ak euh, njabootu sëriñ Tuubaa yëpp muy sëriñ Cheikh Absa ñu gën koo xam ci Cheikh Sidiya Babal Kabir mu nga xamante ne moom la ko way jërëm sëriñ Mor Anta Sali euh, tuddee kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp kon ba ñu delloo si waat kàddu gi rek. bismillaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh. sëriñ bi ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax ci am mbégte ci jotaay bi di sant yàlla bu baax a baax ci fekke giñ ko fekkewaat ci sa kanam tey ji daayira sëti sëriñ Cheikh Absa yépp amoon mbégte ci jotaay bi ne woon nañ def benn palato boo xam ne dañ koy jële ci Ndindy Actu ñëw nga am kàddu yoo xam ne danga koy jëmale ci Serigne ab Absatou Mbacké ak bis boobee nga xam ne yaaw mii yaa àndoon ak kilifa yi dem ci Serigne saaliw mu joxoon leen ndigal ci ne dee leen ko def ci ñaar fukki fan ci weeru kori ndax bis boobee ci la gisee woon nag magam ju baax ja Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul bi nga xamee ne dem na ci géej gi ba ñëw yaakaar ndigal loola ci yow mii la jóge woon ca Serigne Saliou mbakke ñu koy taxawal nag at mu jot di ko ànd ak yow di ko ànd ak mboolem foo xam ne sëti Serigne ab Absa yaa nga fa ak taalibe yi ak mboolem mbokki mbokk yëpp ñu ko doon amal ci jotaayu Serigne Cheikh Thioro ba mu egsi fii ñu koy amal fële ca xombal ci suñ kilifa googu di Serigne ab Absatu Mbacké comme ni nga ko waxee di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool tam ànd ak wér lool. te ngeen yàgg ci ginnaawam ñu yàgg seen ginnaaw eh, mbokk yépp nag ak taalibe yëpp ñu ngi fi xam naa kàddu yi sëñ bi li ci ëpp ci yow lay jëm ndax sunu maam ju baax joojee bari na xañ na ay gëstu yoo ci defoon yoo xam ne dinga ko leeral mbokki taalibe yëpp ñu gën caa xame bis bi tamit ni nga ko waxee noonu rek murit yëpp dañoo tënku ci ndigal te comme sëriñ bi nii la ko diglee noonee rek moo moo moo mooy tànneef ji moo mooy mooy dajeeg mbégte mi tamit ni nga ko waxee rek bu bis baa tamit taalibe yëpp maase fu waaye nekk jàng alxuraan jàng xasida yéene yool bi sëriñ Cheikh Absatou Mbacké loo man ci ay berne tamit nga def ko loolu rek mooy ndigal li xam naa sëriñ bi kon duñ ci guddal dañuy bàyyi rek nga yaatal jotaay bi xamal ne taalibe yëpp tamit ñu ngi maasawaat di tënku ci sa ginnaaw ndax yow lanu sëriñ bi booleel yaay jëwriñ ji foo ne nañ doxe nii rek dinañ ko doxe xam naa sëriñ Thierno mii tamit nga xam ne yàlla daa dogal moomit mu mu yëngu ci ndindi acte ñoom mu ànd ak ñoom te lépp nag di sëriñ fallu ndax sëriñ Cheikh ab kat kenn kenn ku ne xam na wóllare woom amoon ak du faa Fadal kon nag buñ demee ba tey jii ab sëtam di yënguwaat ci site boo xam ne tey dañ koo tuddee sëriñ fallu njabootug sëriñ fallu moom ko. kon loole day mel ne am na ak dalu dalu xel bu baax a baax te xam ne lu lu ñuy suuxat la kon ci barkeb Sëñ Fallu te ñu yàgg ko ànd ak yow xam naa dañuy delloo Sëñ Cerno kàddu gi rek mu commencé laaj yi nga xam ne moom moo yaatal ci jëm ci Sëriñ ab Absatu ak magam ju baax jee Cheikh Ahmadou Bamba jërë ngeen jëf mbokki taalibe yépp nag ñu ngi nii mboolem ñi nga xam ne ñoo jiite daayira bi ñoom ñu ngi nii toog suñ wet kenn desut kon nag Sëriñ Cerno kàddu gaa ngi noonu noo noo ci yaatale rek ñu am ci déglu bu baax a baax a baax. Abdul Amin ci kàddu yu am solo yooyu fa tabaarakallaahu ñaan yàlla tabaaraka wa taala defal tawfiix kon mbokk yi li leen doon wax léegi lenn ci dundu Serigne Cheikh Absa Mbacke moom yi nga xam ne léppam da koo joxoon boromam tabaaraka wa taala waaye awale ko ci magam ju sell jooju Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ndax alxuraan dafa ñu wax ne wa ulil amri minkum ñi nga xam ne ñooy seeni kilifa dee leen topp te sëñ Cheikh Absa Mbacké léppam da koo jox Seexul Xadim radiyallahu anhu ci ak ngoone Mbacké ba ci magam kon dañuy jox sëriñ Cheikh Jooreel Mbacké mu waxtaanal ñu lenn ci juddug sëriñ Cheikh Absa Mbacké radiyallahu anhu ak digganteem ak magam yu sell yooyu ak digganteem ak xalaaqa bi nga xam ne amoon na ko ci yoonu murit kon sëriñ Cheikh dañ lay jox ñu dugg ci. lenn ci jaari jaari sëriñ Cheikh Bousso Mbacké radiyallahu anhu bismillah. Euh, sëriñ Thierno ak mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp ci turu suñuy kilifa ni ma ko waxoon sànq muy sëriñ Cheikh moom sëriñ Thierno Cheikh Mamadou Bassir mu bàyyi sëriñ Cheikh Gaawam ak sëriñ Mame Balla ak sëriñ Ahmadou ak suñu kilifa yëpp ñu ànd ko su rakk yi itam ci ànd rafet ni ko sëriñ Momadou Lamine waxee euh, lu ci nekk rek. taxaw bu ngeen ci taxaw moo tax mu agsi fii rafete nii mu rafete euh, sëriñ Cheikh Absa nag radiallahu taala anhu euh, waajuram sëriñ Moro Anta Sali mi ngi ko tuddee Cheikh Sidiye Baba at Kabir mu mag ma ku ne xam ne diggante euh, sëñ Moro Anta Sali ak tarixatul xaadiriya ba tax na li ëpp ci njabootam yépp ku mel ne Serigne Cheikh Thioro mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Khalifa Serigne Afia mu tuddee ko Serigne Afia Ahmadou Mokhtar Niang maam Thierno Birahim mu tuddee ko wenn wala réem di borom xam-xam bu mag eh, ci wàllu tasawuf eh, di benn tukkulóor bu baax bu sell ñu ngi wax ci Thierno Ibrahim Cheikh Massamba itam mu tuddee ko kenn ci gaañu baax yooyu. Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu sunu yaakaar teeg ëllëg mu tudde ko sëriñ bu ko doon jàngal muy Ahmadou bàmba Sall loolu moo tur andi turu Ahmadou Bamba wi sëriñ moo jaar mu tudd ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon sëriñ Absa mi ngi tudd Cheikh Sidiye Baba al waaye ñu dakkantal ko ci way ndax naar ñoo baaxoo wa waxe ñu di ko wooye cheikh loolu moo doon ñaan ko cheikh di ko dàkkantal ci soxna Xafsa Jaxate mi nga xam ne Euh, moom itam mi bokk ci néeg bu sell jaay doomi soxna ci biir mbaakol waaye nag mu sëtoo ci soxna Mbacke Awa mi nga xamante ne bokk na ci doom yu mag yi maam kon seen Cheikh Absa sëtu na ci maam Maram ñaari yoon muy maam Balla Aysa moo jur bay juram wu góor muy sëñ Mor Anta soxna Mbacke Awa itam moo jur ki jur way juram wu jigéen muy soxna Absa Jaxate mi ngi gane àdduna nag ci Mbacke Kajoor yaakaar naa njabootu sëñ Mor Anta Sali moom rek moo ci ganee Mbàkke Kajoor ndax sëñ Mor yàggu fa wàcc ab liggéey Cheikhul ma radiyallahu taala anhu itam la nga xam ne moo dem ci moom ci bis boobu ci toppatoo mooy ka jox addiye sëñ Mor ngir mu jox ko aw teral ko. dafa tàmbalee ci sëriñ bi ni nga xamante ne ni la yàlla baaxe sëriñ bi njabootu sëñ Mor Anta Sali yépp doon ay doom ci moom doon ay taalibe ci moom. mu taxawu leen ci saayir taxawu leen ci baatin bi nga xamante ne mat na jàng dal jàng alxuraan it sëriñ bi ci boppam moo ko dalal joxe ko ñu jàngal ko alxuraan mu jaar ci uh, loxo sëriñ ba Jóob mu sëñ sëñ Souleymane Diop mu jàngal ko alxuraan wax nañ ni dara ci xam-xam sëñ Mor Jaara jàngal na ko lenn itam sëñ maam Thierno Birahim jàngal na ko mu doonoon nag koo xamante ne ku teel a sotti la ndax seexul xadim radiallahu taala anhu ku njëkk ci yow rek noonu rek ngay mën a mel mu doonoon jëmm joo xamante ne euh, ku ko gis rek bëgg ko waaye nag ma nga saboobo ci bëggu seexul xadim nga nga xamante ne wax na ne néewaa ku muy raay boppam waaye saa bu mosaan gis day aman mbégte lool di fab loxoom bu tedd ba di teg ci boppam ngir di xool di ko xooli sëñ moo Anta Sali radiyallahu taala anhu ndax dañoo wax ne def koo niru woon lool. moom itam mu jóg bokk ci ñi nga xamante ne njëkk yaakaar sëriñ ba dañ topp ko am nag moom ci àndi mu rafet sëriñ bi itam mu wëlbatiku boole kook mbokkama nga xam ne magama di nijaayam muy mam Cheikh Anta radiyallahu taala mu nekk ak moom nekkin wu rafet ci ndéwlu sëriñ bi waaye bi sëriñ bi ñëwee itam mu daal di bokk ci ñi nga xamante ne ñoo gën a sonn ci bis boobee ci teral ko wax nañ ni teraange yu bari la ci ëpp ci bisu Daaru Salaam boobu sëñ Cheikh Absa radiyallahu taala anhu moo ko fa yóbbu da ngeen dégg sax ñuy firndeel jëmm jooju nga xamante ne dafa waxoon sëriñ bi ne ko bu fekkoonte ne euh, rend doomu aadama dagan na kon dañ koy rendi teralale ko gannaaw boo xamante ne def na la man lépp waaye mu daal ko ne kon nag jëmm ji goreel naa la ko jébbal la ko loolu moo waral nga dégg naan euh, jébbal magam sëriñ Mamar Borom Saam kon sëriñ si sa doon koo xamante ne léppam sëriñ bi la bi nga xamante ne sëriñ bi ñëw na itam ba dem gànnaar mu bokk ci ña jóg fekki ko fa ca ko daale daal yu rëy xamal ko ne ko sa mbir mooy sooratul fati te ku ne xam ne ne sooratul fati njëlbeen ga njëggalu kese la ak mbaa yàlla inna fatahnaa laka fatahan mubiinan li yaxfira laka allahu ma taxaddama min zanbika wa ma taaxara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siraatan mustaqiman mujj ga itam kenn ku ne gis ne saxaaba yi muhammadun rasulullahi wallazina maahu asiddaau alal kufaari ruhamaau baynahum taarahum rukkan sujjiran yabtaxoona fadlan min allahi wa rilwaana simaahum fi wujuuhi min asari sujud ba ca mujjug aaya ba kon ku ne xam na ne kon kooku borom cër bu rëy la wax ne na sax booba da fekk sëriñ bi di waxtaanee saxaaba yi ak seenu baax mu di ko yéem mu xamal ko ne yow yaa ak sëriñ Cheikh ga yéen lañ rafaatalee daraja yi saxaaba yooyu kon muy doon kon xam ne ku amoon ci sëriñ la am na béy lim ko firndee la sax. ñu xat dama ne xuddu mu man xa jaaw bi bu soree wax xor la jaaw dam ba ba ci ba ci mujj ga muy ñeent wala juróomi bayit yoo xamante ne da ciy tagg saxaaba yi kon Serigne Cheikh sax daal doo noon na jëmm joo xamante ne ku amoon amoon lislaam la ku amoonuk taalibe la ku déggoo woon sëriñ bi la déggoo ay bokkam itam ndax loolu dana feeñ ci ay turi ay njabootam ndax kam jëkk a gis Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu la ko tuddee boo xoolee maam Thierno Birahim moom la tuddee Baye Thierno mi nga xamee ne tey jii sëriñ Cheikh mooy xalifa bi rakkam sëriñ Cheikh Thioro mu tëddee ko maam Cheikh Anta mi nga xamante ne moo doon lépp nu taxawaayam mu ñaareelu doomam mu tuddi ko muy Baye Cheikh Gaawaan tudde maam Balla Aysa itam mi nga xamante ne mooy maamam tudde ko doom tudde Serigne Mor Anta Sali itam euh, tudde Cheikh Massamba euh, euh, siñaafe itam wax nañ tudde woon na ko waaye dafa dundul mën nañu daal ku jaxasoo woon ak njabootu Serigne Mor Anta Sali yëpp la rawatee na nag taalibi sëñ Tuubaa yi nga xamante ne moom ak taalibi rek moo leen ñor mu jaxasoo woon ak ñoom lool ku mel ne Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala wax nañ ne ku ko soppoon la ku ko bëggoon la ku jaxasoo woon ak moom la sëriñ Issa Diagne jenn itam wax nañ ne xaritama woon kum fa taqooloon la ci yu baree baree bare te kenn ku xam na ñooñu jagle yi ñu am ci sëriñ bi wax nañ itam sëriñ bi daana wax ne euh, bu yow mal xëyaamee dana ku ko ñee ci ab cëram ngir dëddugum dëdd woon àdduna ndax dafa jóg rek doon ab liggéeykat boo xamante ne dafa waxoon sëriñ bi ne ko àdduna de ay pexe mën na cee maye lu bari te ku ne xam ne sëriñ bi nu mu dëdd woon àdduna ak ni mu bàyyi woon adduna mu doonoon liggéeykat boo xamante ne ci jamonoom bokkoon na ci ñi gënoon a produire gerte ci façon boo xamante ne bu yéeme la loolu moo waral sax kër gaañu googu jamono bi fa nekkee di liggéey. taxoon na sax naari bayru di ñëw dëkk seek moom ngir lu muy bay ci gerte ngir ñu di ko jënd kon mu doonoon jàmbaar joo xamante ne doon liggéeykat boo xamante ne doon taalibe boo xamante ne lépp da koo jeexaloon ci Sëriñ Tuuba radiyallaahu taala anhu lu mu nekkoon nekkoon jur ci ñoom daf leen doon xoole Sëriñ Tuuba ay sëriñ la leen defoon muy ko jaxasoo woon Cheikh Mouhamadou Moustapha wax nañ ni ñëwoon na fii seet si ko bi nga xamante ne mu ngi yeesal si ak taalibeem ci moom ngir ne ko ñëpp defee gannaaw sëriñ bi seex Cheikh Mamadou Moustapha ah, sëñ Baba mbay wax ne na am na fi ay fan jamono boobu ci la doon seeti Cheikh Mamadou Bassirou ba jub ko jëf-jëfi na woowe mu jëf mu yéem Baba Mbaye lool ndax moom boobu miinut kudut euh, euh, sëñ Cheikh Absa waaye mu gis taalibe gi tam gis ne moom moo ko mag bu noppiwul bëtiku bu doonoon mbokk ñu ne wayjur la ci moom waaye mu teel ko caayee daal ko ne Babacar mu ne mën ko Serigne Touba de dafa ñëw ci jamono fekk askanu Mbàkke gën cee xajoo nit ñi te dimbali nit ñi moo ko tax a jóg loolu moo waral mu feeñ ci askan waaye bokkut ak ñun dara kon nun ay taalib rek la ñu doon loolu kon mooy doxin wi nga xam ne ci la daan dox digg ma Cheikh Mamadou Fallou itam doonoon diggante boo xamante ne euh, diggante bu yéema la ndax euh, laata muy génn sax jébbaloon na ko li ëpp ci ay njabootam dénk ko ko ba tax na Cheikh Mamadou Fallou itam doon na toppatoo njabootu sëñ Cheikh Absa yépp euh, ñu ko tàmbalee ci Baye Cheikh Gaawaan euh, sëñ Fallou amoon na ci moom ay yéene yu baree baree bare nga xam ne lam ca namoon sax bu amoon tey li ëpp ci ak njabootam sax ci bokk sëriñ bi la ñuy bàyyi ko ndax joxoon na ko doomi sëriñ Afee Ñang ca njëlbeen euh, loolu doon loo xamante ne. ak yëg-yëg ak ku bàyyi xel munu ko munu munu ko munu ko weesu daan def itam lépp lu mu yëngatu boole ko ca daana dem Touba Bogo di dëkk ji fu sëñ Fallou ma sa bay rek suñu Cheikh Gaawaan dem na fa euh, liggéeyal ko fa euh, njabootu suñu Cheikh Absa gépp itam mu daan leen toppatoo ba ci sët sax asu Mbàkke ñi nga xam ne asu Maam la moo mujjoon toppatoo ndax bàyyi na fi doom ba andi woon ko ci jamono yoo xamante ne yàgg na ci kër gi ba nga xam ne bii muy sëñ Fall yu nelaw mu ngi ci biir kër gi nga xam ne noonu la doon toppatoo njabootu sëñ Cheikh Absa yëpp sama waajur wax na ne képp ku sëñ Cheikh Absa jur rek nee na sëñ Fallu moo ma nuyooleeg moom ne ma nuyooleeg kii kii sa doomi bàyyi la loolu kon day tegtale yëg-yëg ak bàyyi xel gu mu doon bàyyi xel njabootu sëñ Cheikh Absa wax nañ ne mës na ko euh, mas naa ñëw fii di seet sa sëñ Masamba dem Kalière yàlla dogal euh, mu yónni Baye Baba Mbay Mbàkke nee na mu ñëw fekk fa Cheikh Mamadou Fallou nee na mu mu séen ko rek daal di koy woolu mu ñëw mu ne ko ndongale foofu bàyyi ko mu ne ko Kalière mu ne koo àndal mu ne ko suñu saab sa nee na mu daal dindi ñaar fukki dërëm si jamono boobee daal di koy jox suñu Baaba Mbay ne ko boo demee joxal ma ko ne sama addiya la nee bi ma ñëwee ma daal ko ne ah, man na gis naa fa am naar moo a jox ñaar fukki dërëm yi nee na sax boobu man xaw ma ñaar fukki dërëm lu mu doon nee na xaalis bu bari la nee na ma ne ko am naar daal laa fa gis moo la ko jox nee na addiya la nee na mu daal di muñ daal ne kon xam naa Mouhamadul Fadilu la loolu di kóllëre ne kon na ko njaboot Sëriñ Tuubaa wax ne ñëw na fii ganasi ko keroog ba muy dem sëñ Fallu daf ne mbooleem li newoon ci néeg bi nañ ko ko jox mu yóbbaale bokk na ca lal bu yéeme sëñ Fallu daal ne ah, nañ ca topp nag ndax moom ku tabele bu génnee dana ko maye bu ko ñu fexe ba fu ko maye rek nañ ko jënd nañ ma ko jëndalaat ñu fexe ba bu demee këram fekkaat ko fa wax nañ ne lal boobee kër ba mu demee yarnoo kër sëñ Mor Roqee Bousso moom la ko may sëñ Fallu jëndaat ko yónnee ko kon daal sëñ Cheikh sa doonoon koo xamante ne taalibu sëriñ Touba la woon di mbokkam di mbokkam ñëpp nag ndax ni ma la ko waxee dafa sëtu ci maam Maaram ñaari yoon muy maam Balla Ayse mi nga xam ne moo jur maam Mor Anta Sali ak soxna mbake Awa Ñang mi nga xamante ne mooy taaw maam Maaram bu jigéen te itam moo jur ki jur soxna ab sa kon daal sëñ si ab sa loolu doon na ci loo xamante ne mënees na ko wax ci moom muy koo xamante ne ku ñuy roye la ci fonk ak bokk wax nañ ne itam ku yàlla joxoon xel mu rafet la ba tax na seexul xadim radiyallahu taala daana def ne bu amee ab diggante boo xamante ne ak bokk la goo xamante ne bëgg na ci ak yéwénal moom la woo yónni ko ci ngir xam na ne xelam mu rafet ak mën a defaram loolu itam daana ko ko liggéeyloo kon sëñ Cheikh Abdou Salaam bëggoon ko lool wax ne na sax gannaaw sëriñ Mor sëriñ bi ci boppam ci xelam mu ci ci ci xelam mu rafet mu sëñ Cheikh Abdou ak bëggu defaru sëriñ bi ndax Mbàkke noonu lañ mas baaxoo di def mooy bu ñuy cëral dañuy cëral ka gën a gën a doon gone kon wax nañ ne bi fi sëñ Mor jaara bàyyi ko sax moom la yabaloon ca kër ga ngir mu toppatoo ko waaye ba mu ñëwee daf ne sëñ Mor kat sama bàyyee sëñ waa sama sëriña def la def ca lam ca war a def lépp daal wëlbati ko at delloo kon daal sëñ Cheikh Absa ñu ngi leen di seere na daal ab julli la ab taalibe la mbokk la ku rafetoo mu xel la ku nangu woon a liggéey la ku bëggoon ñëpp la ku ñëpp bëggoon la am na góor gu baax ku sant Amar gu ne woon Mbàkke xamoon na ko loolu dafa daan wax ne li ko yéem sëñ Cheikh Absa mooy ku ko gis bëgg ko te saa boo xëyee da koy gën a bëgg. kon kooku mooy sëñ Cheikh Absa radiyallahu taala anhu ñuy ñaan yàlla bis bi nga xam ne daan nañ ko ci def di ko ñaanal mu doon bisu mbégteem boo ak see kon sëñ Cheikh digle ne ci ndigalu sëñ moom Cheikh moom mun Mountakha na ko ñëpp defe ni nga xamante ne noonu la bisi yàlla ñu defe ko ni muy jàng alxuraan jàng rek kenn ku ne defe ko ci këram foo mu ñu bis bi waaye kon ñu defe ko nii bañ baat kook jàmm ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi kàddu yi rafet na bu baax a baax ci lenn ci dunduk sëriñ si Absa nga xam ne suñ déggee wax jëpp rek mooy li nga xam ne moom la ah, yàlla tabaaraka wa taala namoon ci moom ngir mu awale ko ci waajiru sel yooyu sëriñ Tuubaa def na ko ci moom. ci li nga xam ne dafa waroon nit diggante ab jullit ak mbokkam lépp matal na ko ndax wax nga léegi ne. mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ Mor Anta Sali tudde na leen ay doom wala ñi ëpp tudde na leen doom xalaaq bi nga xam ne am na ko yoonu murid muy Cheikh Moudoul Fadal taalibe gi nga xam ne feeñal ko ci feeñal na ko ci Cheikh Mamadou Bachir kon loolu li ñu ciy jàngate rek mooy ab jullit ab rawatina ab murid dafa war di amuk taalibe di ko feeñal ndax comme noonu ko ko waxee maam Baba Mbaye bi nga xamee ne jub na sëñ Cheikh Absa jub na Cheikh Mamadou Bachir daf ko wax ne ko teel dàll yi waaye Cheikh Amadou Basir boobu ma ngi toog ci piliyaan yor ab torsu ne ko ndongali tegal dàll yi waaye maam Baab Mbay nee na comme que sëñ Cheikh Abdou Salah gën a miin ma jëfi ndigalam rek biñ demee mook sëñ Basiiru ban waxtaan bay ba ba ba sëñ Seex sa génn dem la ne ko ci baaba soo tegoon daal yi ne ko da xam ne ñii suñ borom dafa tànn ñu boole ak ñoom waaye kenn yëpp doomi sëñ Tuubaa yëmut dara kon loolu ñu ñu royee ci ne moom ak taalu bi dong la daa dundu rawatina ci Seexul Xadiim sëriñam waaye njabootuk sëñ Tuubaa kon loolu ñu ñëpp war nañ cee jàngate loolu nga waxit ne dem gi mu dem gànnaar day wone na xam-xam bi nga wax léegi ne am na ko feeñ na ci moom ndax koo xam ne sëñ Mbàkke koo xam ne seexoon sëriñ Daam Abdourahmane Lo jàngal na la sëñ Souleymane Diop du mbokkum sëñ Masamba Diop Sam jàngal na la waaye ab xam-xamam mu loo ko ci sëriñ Mor Jaara kon loolu wone na ne dem gi nga xam ne demoon na ko gànnaar te sëriñ bi waxoon ne ñi may fekk gànnaar ñett yi nan ko làmboo nan mokkal alxuraan dégg arab ba noppi diine nekk ci ñoom waaye la gën rëy te gën am solo néew na koo xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu référence na wala jël na say jikko ci alxuraan te nee na mbiri Serigne si ab sa su ngeen bëggee mu leer leen xool leen ko ci soratu Fatih te loolu mujjantal ga ak ak jeexital ga lépp ndimbalu suñu borom la te suñu borom ma ngi cay wax ne wayang zuraka allahu nasran aziza kon Serigne si ab sa nit la woon koo xam ne daal ku yàlla tànnoon la waaye loolu lépp nag mu tasaare ko ab liggéeyam tamit lu lees mën a wax la soo demee ci sëñ Moussa Ka rek ma ngay wax ne ci nettali bu siiw bi nga xam ne Serigne la radiyallahu anhu digal na ko mu sanc jooreel 1912 ca jooreel may wax na sëñ si Abdou Mbacke toñ na àllub jooreel nas ruwe nos ruwe wammat lii soree naag dooral taaram ba ak leeram ak xekkam ya amut ci waa Mbàkke fudd sëriñ bi am na koo xam ne sax ginnaaw boo xamee ne sëriñ bi génn àdduna da doon def ab tournée ci rakki sëriñ bi ak njabootu sëriñ bi nee na ba mu demee jooreel li ko gën a yéem ci njabootu sëriñ dongaay sëriñ si sañ mooy bari nañ waaye ñoom ñëpp kenn débordé wu ci su waxtu jàng jotee dañuy jàng waaye moo yor seen dund yor seen lépp kon loolu day wone ne rek ab liggéeykat la woon waaye lu mu mës liggéey nag da koy jox seexul xadim radiyallahu anhu xalaaqa bi nga xam ne am na ko mook sëriñ Masamba lool feeñ na ci kon loolu daal lenn la ci dunduk suñ si af sa kon ñu xam ne bis la comme ni ko sëriñ bi waxee dan ko daa def saa yoon ko ba mu am ñaar fukki fan waaye li nga xam ne moo gaar adduna bi sëriñ bi joxe ndigal ne su bis ba ñëwee nan dajaloo jàng alxuraan jëfe ndigalu Cheikh ñu xam ne lii lenn la ci dunduk sëriñ Cheikh Absa Mbacké moom mi nga xam ne léppam da koo joxoon yàlla waaye joxoon ko mbagam ja Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul kon xam naa day mel ni dañuy jox sëñ Lamine rek mu tëj ci wax ci kàddu euh, fédération Sahadatul Mouridine nii ci sët sëñ si af say su ko defee ñu tàggagu yéen ba benn yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Cheikh Jorel Mbacke jërëjëf sant nañ bu baax a baax kàddu yi niñ ko séentu woon màtta na ko noonu sëkk ñu ñaan ci barkeb siriñ tubaa yàlla gën la fee yàggal lool te defal la wér lool ndax li nga leeral ci sëñ si sa macha allah am na solo lool kon sëriñ Thierno ni nga ko waxee rek jërut ñu ciy jaaraat ni ko sëñ bi waxee lépp leeralaate nga ko noonu waaye li nga xam ne moom lañ ci dolli muy ci waa daayira comme ni nga ko waa daayira bi yëpp nga xam ne ñooy sati si ab sa yi sëriñ bi ni leen koo digale rek ni nga ko daa defee bu egsee ca bis ba muy ñaar fukki fan ci weeru kor wi tombeeg la douze incha allah buñ ca eggeeg jàmm fépp fu waay mën a nekk na nga dundal bis ba ci alxuraan ak xasida eh, def ay bernde tamit ni niñ ko daa defee te ñaanal sëriñ Muntaxa ak njabootuk sëriñ Tuubaa gépp ñu yàgg fi tey gën a soññee taxawaay yi rafet na lool sëriñ Cerno mi nga xam ne moom niñ ko waxee léegi moo yor wàllu euh, daayira bi ci communication boole ci di liggéey ci Ndindy act gi def na ci ay jéego yu yaatoo yaatu di depuis ba xam ne ñu ngi ci waajtaayu bis beeg léegi def nañ ci ay jéego yu yaatoo yaatu ngir fépp foo xam ne kàddu kër sëriñ si ab sa war na faa jub rek sëriñ Cerno ànd naag ñi nga xam ne ñoom la ko seqal doon ca doxe noonu ñoom sëriñ Abdou Lahat ak sëriñ bu Bousso sëriñ Mbàkke ñoom ñi nga xam ne ñoo waa daay ak sëriñ Maxtaar ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn ak sëriñ Xabaan xam naa ne ni ko sëriñ bi waxee tamit ci biir waxtaan wi bari na lu lu lu ci fettaliku loo xam ne xam naa eh, kóllëre ak moom mm, lu doy waar la ndax boo seetee sun sun sun sun sun doom yu baax yii rek buñ ne waat gis daal di gis seet suñu yeneen jarbaat yu baax ñëpp meñ euh, di di waa kër njabootuk sëriñ Fallu ba tey ñu teewaat ko ay déwén yu bëree bëri ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñun bis bi àjjuma lay tombeel le douze incha allah di ñaar fukki fan ci kor wi kon na ko ñëpp bàyyi xel te buñ ca eggee ñu wàcce ay kaamil ak alxuraan ak xasida ba déwén ak jàmm nag ñu waajal ko sëriñ ba ñaan ñu fekkwaat ko ci barke Sëriñ Tuubaa yow yàlla yàggal la fi ba nga xam ne kàddu gi nga xam ne yaa ko yor ci kër sëriñ Cheikh Absa fi nga ko bëgg a eggale sa taxawaay fépp egg ak ndax ndax xam naa ne ñaare ci am ñaari jotaay la muy jotaayub sëriñ sëriñ Cheikh Absa ak jotaayub sëriñ Fallu ak jotaayub sëriñ Tuubaa lépp dafa jaxasoo ndax boo seetee fee ca Mbàkke Bari yi sëñ Cheikh day faral di wax naan cërub sëriñ Cheikh ab la ci sëriñ Touba ndax la ko waral mooy sunu wu baax ba sëriñ Cheikh Corom mi nga xam ne moo àndoon ak sëriñ Fallilou liggéeyal ko ba sëriñ Fallou gërëm ko yëkkatiwaat dëkk boobee teg ko ci loxoom ba sëriñ Cheikh mii ne fa jëmmal ko jëmmal goo xam ne leer na àdduna bépp loolee lépp kon jëfi sëriñ tubaal ak jëfi sëriñ Fàllilu ñu njukkalewaat ko sëriñ ab Absatu kon nag Mbàkke boo amaatewaate yeneen taxawaay yii ñun amuñu lu dul ñaanal la rek yàlla yàggal la fi ba li nga bëgg a yéene ci kër li nga yéene ci kër yëpp yàlla eggale ko barkab sëriñ Fàllilu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh مع عيوبي ومع عفاسي من قادني سكور في أنفاسي مع عيوبي